yëngu-yëngu jamono yi bu leen ci dugg te ci des perte nga ma leen di ñaan yëngu-yëngu jamono yi bu leen ci dugg te ci des perte nga ñëpp a ngi naan réew mi suba dina toj gannaaw suba dina toj gannaawaatu suba dinañ tas ñii jëm fii ñii jëm fële réew mi li ko sos moo mag fuuf ñi ko bëgg a tas président mënu ko tas ay ministre mënuñ ko tas ay opposition mënuñ ko tas ay sëriñ mënuñ ko tas ay taalibe mënuñ ko tas kenn mënu ko tas li ko sos ëpp na tas da ngeen yaakaar ne sëñ tuubaa dafa ñëw rek ba dem bàyyi Touba noonu rek ku ko yaakaar yaa ngi nax sa bopp da ngeen yaakaar ne maam Maodo dafa ñëw ba dem bàyyi Tiwaawoon noonu rek ku yaakaar ne yaa ngi nax sa bopp da ngeen yaakaar ne cheikhul islam dafa bàyyi Medina noonu rek dafa ñëw jaar rek dem yaa ngi nax sa bopp réew mi mag ñi fi nekk dañ ko aaral seen bopp teg fi ay principe teg fi ay yoon képp ku ko bëgg a jéggi li la ciy fekk doo ko tal nañu dal lu ñu mun a woote tudd dal amul njëriñ génn leen ngeen reyante génn leen ngeen dóorante saagante leen génne ay alkaati génne ay gendarme génne ay policier réew mi soxlawul loolu tey li ñu soxla stabilité lañ soxla stabilité nationale soxlawuñu marche nationale soxlawuñu provocation nationale soxlawuñu grève nationale soxlawuñu doranté nationale paix nationale lañ soxla stabilité nationale ku len ci mën wo woo wuyu ku len mën wo ci dalu réew mi ku len mën wo ci jamm réew mi ku len wo ci weg magni ñi wuyu leen ku len mën wo ci jox cër kilifa yi wuyu leen bu ngeen xamone kilifa yi li ñuy waxtu ben minute ci réew mi ku ñu ne demal toog di nga toog man de sama baay bi mu nelaw ak léegi ñaataat la ñettaat daj naa ci loo xam ne mburu du ko daj ci taal te loolu damay wéy di ko daj di ko daj di koy daj ba bés bi may fekk ak moom dañoo yaakaar ne yan bi yan na nii rek yaa fi wutu sa baay noonu lu la reex wax mbir mi du noonu de nañu dalal xel yi te xam ne réew mi soxlawuñu fitna